allo ah. Bouga alo oui oui oui ça Ahmed. yaa ngi ci ah, tës bi direct waaw. ok ok lu xew. waaw li xew mooy image yi ñu gis lañ bëgg a xam lan moo xew ci quai de bu Mbour. ok eh bien écoute Ahmed maa ngi lay sant maa ngi leen di sant yéen ñëpp. merci. di rafetlu euh, liggéey bi ngeen di def. <coughs> alors euh, li xew quai de bu Mbour. Hmm. mais je crois que gis nga vidéo yi. waaw mooy li xew. Euh, dañu ñëw. man euh, maa doon def euh, euh, tournée sur la petite côte. Hmm. dem comme nu ma ko tàmm defee ci saa su bu jafe-jafe amee ci fu mu am ma sol suma dàll dem waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci secteur bi am ay jafe-jafe. Hmm. ni ma ko defee woon ci mbay mi. Hmm. ba gis jafe-jafe yi ñu jànkonteel. ba fexe ba bu ma ciy wax ma xam lu leer lu ma ciy wax et puis comme ay doomu réew mi lañu ma takk suma ndigg bokk ci ñi leen di jàppale parce que nag euh, man ndar la juddoo fa la fala fa yaroo ami xarit ami mbokk Guet Ndar euh, ami doomi bàyyi ak mbokk sanc ba su may bàjjan ak su may cousin ki cousine dëkk koxu mbaj kon yaakaar naa ne mhm. bu ñuy wax ci napp luñ ci wax man lañu ko waxal. Mhm. Euh, ma sol suma dàll dem Joal euh, fekk fa ñoom euh, Habib Ndiaye ñoom Thion mhm. dugg ba ci gaal yi waxtaan ak nit ñi ñu wax ma seeni jafe-jafe. Amet xam nga quai de moom ku ko wax rek wax rassemblement parce que quai de pêche ah, ñëpp fay daje ah, et su mbox loola. Mhm. bi ma jógee Joal ma ñëw Mbour war a dem ci quai de bi bi ma ñëwee. ma fekk ñu def fa benn déploiement police indi fa ñetti camion GMI euh, bloqué accès yi oto sax mënul dem ci quai de pêche bi ma ne waaw lu xew ma wàcc dox jëm ci quai de pêche bi euh, un lieutenant m'arrête ne ma nous avons reçu des instructions ne waruloo yegg ci quai de pêche bi ma ne ko ah oui lu tax mu ne ma dangay dañuy bañ rassemblement ma ne ko déet da ngeen a njort rassemblement parce que fi may wax ak yow nii man dong may dox bu benn nit di dox mënta am rassemblement kon kay yéen ñii groupe yéen alkaat yi yéenay def rassemblement. Mhm. mu ne ma dañu jot instruction ne bul def déclaration ci quai de pêche bi. vidéo yi mu ma ne ko bu ma def déclaration ci quai de pêche bi ma ne ko ça c'est une atteinte à la liberté. ma jël sama téléphone woo le préfet de Mbour. ma ne ko monsieur le préfet je me présente mu wax ko suma tout ne ko on m'a interdit l'accès au quai de pêche dañ ma ne du ma yegg ci quai de pêche bi pour wax ak kat yi mu ne ma effectivement man maa joxe instruction yi pour nga bañ a yegg ci quai de pêche bi ma ne ko lu tax mune ma damay njort damay njort rassemblement am fa ma ne ko mais monsieur le préfet euh, quai de pêche moom ku fa ku fa dem rek xam nga ne rassemblement la ma ne ko tey su ma doon dem di jëndi jën nag mu ne ma boo doon jëndi jën it du ma la bàyyi nga dem. Ah. parce que boo demee rassemblement lay nekk. Eh ma ne ko donc ma ne ko donc da ngay présumer rassemblement mu ne ma damay présumer rassemblement bu la neexee nga jàppe ko noonu ma ne ko nag je prends bonne note ma raccroché. <laughs> jàkkaarloog lieutenant bi ne ko damay dem ci quai de bi daal di gëpp sama tànk dugg ci quai de bi. bi ma duggee ci quai de pêche bi ñoom ñu topp ma ak seeni i oto ak seen grenade lacrymogène mais xam naa ne foofu munuñu faa sànni grenade lacrymogène parce que mbooloo mu fat moo nekk ci biir quai de pêche bi kon duñu fa sànni lak grenade ci laa taxaw nag jàkkaarloo ak ñi doon filmer def suma déclaration parce que baykat euh, euh, nappkat yi amet sonn nañu nappkat yi fi mu nekk nii mënalatuñu seen bopp dara te démb nappkat yi dañ doon faj bu mu gàcc mhm. képp ku xam nappkat diggante Kafountine Jiwaalo Kayaar Mbuur Lompul Fass Boy Guet Ndar dañu daan faj ñoom bu mu gàcce tey nappkat bu ci nekk ay bor mu ngi gàllu ci sa loos gaal goo gis amet ñeent fukki million lay jar gën caa néew tey bu ñu jëlee essence trois cent mille francs mhm. boo jugee mbuur da ngay daw ba ndar dellu siwaat doo indi pañe jën mhm. bërki démb ñi jugee jiwaalo dem Guinée nappi dellu si fukki fan ak juróom benn lañ def li ñu indi daanaka bañ ko indee dañ ko yóbbu pour géej euh, ko ak euh, euh, def ko keccax <laughs> ndax li ñu li ñu indi yëpp yàqu na jën amatul ci géej gi li ko waral du lenn lu mooy bateau yi nga xam ne ñoom la ñu jox ay licence jox leen ay ay ay ay ay autorisation ñuy ñëw di napp ci suñu géej di yóbbu suñu alal di toroxal suñuy nappkat amatuñu dara ñoom nappkat yi tey seen njaboot a ngi tas ñii seen sëy tas na ñii mënatuñu dimbali seen wayjur mareyeur yi ñoom kenn waxaalewul seen wax parce que mareyeur moo doon nekk banquier nappkat mareyeur moo doon jël alalam di taxawu nappkat di ko lebal tey mareyeur yooyu yëpp dañuy làqatu ndax géej gi amatul jën ñi doon waas mënatuñu ñi doon def sali mënatuñu ñi doon def ceccax mënatuñu benn fuuru ceccax rek mm-hmm. benn fuuru ceccax am amet waaw juróom-ñeenti nit gën caa néew dañ ciy liggéey ñooñu ñëpp tey mënalutuñu seen bopp dara lan moo ko waral du lenn lu may accord de yi nga xam ne suñu gouvernement def na ko tey Sénégal amet am nañu lu ëpp fanweeri junniy gaal fanweeri junni gaal yooyu tey kenn ci ñoom nekkut koo xam ne mu ngi dundee ñaqam ay bato lañu ñu jëlee ca bitim réew jox leen xaalis ñu ñëw dugg si ay bateau ñu ñëw ci réew mi ñu jaay leen suñu géej ci un milliard huit cent un milliard huit cent tey jii nappkat yi mhm. tey jii nappkat yi fanweeri junniy gaal yooyu buñ ci laajoon kenn ku nekk juróom fukki junni buñ ko génnee teg ko ci taabal ji ëpp na juróom-ñetti milliards waaw noo mënee jël ci sa dëkk juróom-ñetti milliards say doomu dëkk di la ko jox mën la koo jox ngay jël géej gi di ko jaay di ko jox ay nappkat yoo xam ne ay tubaab lañu dañuy ñëw waxuma la sax jën gi ñuy jël waaye mbaal moo xam ne nappkat yi euh, ser nañ ko ci biir géej gi ñoom bato yi dañuy dañuy xotti mbaal yi mhm. donc dañ lay yàqal diggante deux million ba trois million mhm. ci benn mbaal boo xam ne bato jaar na ci kawam. Euh, uh-huh. dindi ko uh-huh. te ñoom bato yooyu dañoo waroon dem ba douze mille jàpp dix huit mille miles mais bato yi dañuy wàcc daanaka ba ci tefes gi di ñëw di napp si ci diggante euh, six mille miles te loolu jubluwuñ ci lu dul jël yuus gi maanaam jën yu ndaw yi. Uh-huh. moom la ñuy nappe jël ko dugal ko ci biir géej sotti ko fa ngir jën yu mag yi mën a génn ñu jàpp leen. doy après ñu ñuy wax naan merlu noir ak ton bi euh, sénégalais yi lekkuñu ko ban sénégalais moo dul xam lépp la ñuy lekk. dama bëgg ñu respecté réew mi. bi ñu fi doon xeeb sax laa ne lig ñu respecté sénégalais benn yebooy juróom fukk. waaw dama bëgg ñu respecté réew mi. Uh-huh. dama bëgg ñu respecté sénégalais. vraiment man Bougane aw ma beneen intéret waaw lu dul jooyal askan wi ak taxawal askan wi. dama leen wax ne leen man benn objectif laa am. Uh-huh. man Bougane xeexaluma sama bopp ne yàlla may na ma teraanga. Uh-huh. li may xeexal mooy nit ñi mooy sénégalais yi. dama bëgg ñu xam ne Ahmed. Mhm. li opérateur yi doon ci baykat yi ci wàllu gerte gi loolu la bato yi tey di doon ci nappkat yi ci géej mhm. te su ma yéene man mooy jële fi bato yi ngir dooleel nappkat yi ngir delloo si yaakaar ci nappkat yi delloo si yaakaar ci Sénégal loolu nag bu leen yaboo mhm. ñu jël seeni disposition yëpp te xam ne lépp loo xam ne man mii bugaan sama bakkan bi jaral na ma ko dinaa ko ci gar ah, lu ma ci war a dox ci tànk dinaa ko ci def te dara du ma ci teggi mm-hmm. bu yoboo ñu xoqatal bu yoboo ñu tiital ma uh-huh. bu yoboo ñu def lu nekk kilifa gi woo suma wuy jur démb di wax ak moom di ko artu naan ko na wax ak man ah, ah. xamul ne euh, dafa am kàddu sëriñ Touba goo xam ne moo nekk ci suma dënn bii mm-hmm. mooy njëriñ moom mënta am fileeg lor jiituwut te loolu xam naa ne ñoom ci lañu nekk depuis deux ans. kon nag dara du ci dindi. xeex bi may xeex pour askan wi incha allahu rabbi ñoom nappkat yi nañu xam ne maa ngi ci seen ginnaaw dinaa ànd ak ñoom ci xeex bi. ñoom baykat yi nañu xam ne taxaw naa ci ànd ak ñoom ci xeex bi. li may xeex mooy jële fi opérateur li may xeex mooy jële fi bateau yi ci géej gi incha allah. merci beaucoup bu leen yaboo bu leen yaboo ñu def lu ñu xalaat. bu leen yeboo ñu xoqatal ma. bu leen ah, yeboo ñu song leen yéen su may liggéeykat. Ah, ah. mais incha allahu rabbi mhm. li nga xam ne moom moo nekk ci sama kanam euh, aw lenn loo xam ne. lu ma cay tiit la la Serigne Modou Moustapha waxoon rek. Mhm. Mm, kaasu kaasu café gii may naan. waxi sëriñ Touba ni ma biree. Mhm. ni dina am noonu la noonu la mel ci kaasu café gii may naan. maanaam ni ma ni ma wóoree ni café laay naan noonu la ma wóoree ni ko Serigne Touba dëgg la. dëgg la wallaahi lazim. d' accord jërëjëf jërëjëf jaajëf maam Ngor jërëjëf kon Bougane Gueye Dany. courage président d' accord merci beaucoup donc. Euh,